Je la ñuy ci télévision Dakaractu am également di numéro bu bi émission duel Nous amal tout au long de la campagne dal di koy ba campagne honneur ak plaisir bu mag di parce que tamit dañuy jouer rôle bu maga maga campagne bi champ politique tey jii ma ciy dalal ki nga xam ne moo di Absa Ndiaye Sarr moom convergence patriotique pour la justice et l'équité naïler nous ñu investir que sur la liste nationale nous responsable des femmes qui Tivaouane sont si Sar, nous ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa fay. exactement am également soxna Diarra Cissé coalition Manko au Sénégal mouvement président présidente mouvement national jeunesse féminine Nous investir que mu nekk deuxième petit département de Dakar nous, après Bambafal. Fall.

jërëjëf ñu ngi leen di nuyu di leen sant. Mhm. di nuyu suñu naatangoo bi ñu bokk yi ñu bokkal plateau yi. Euh, di nuyu aussi euh, à travers Dakar Actu sénégalais yëpp. Mhm. di bëgg tamit ci toogaay bi ñu fi toog tey. absolument alors euh, en dernier lieu ñu am ki nga xam ne mooy Thérèse Faye Diouf ah, duñ ko présenté ti moom mu ngi bokk coalition Benno Bokk Yaakaar.

co-débattrices yi nga xam ne ñoom laa fi fekk. Mhm. ku ci nekk maa ngi koy nuyu ci turam ak santam. Mhm. di wax ba ci kanam. voilà euh, internet yi di ñuy seetaan en direct et en intégralité fi nga xamante ni moom moo di Dakar Actu alors dañuy démarrer ak ki nga xam ne mooy euh, Absa Ndiaye Sar convergence patriotique pour la justice et l'équité nay leer yow ñu ngi lay investir euh, ci. liste nationale bi nga nekk responsable des femmes ci diwaanu euh, Tivaouane alors euh, lan ngeen mën a jàpp ci campagne bi gannaaw bañ nekkee ci digg bi gis ngeen sénégalais yi dem ngeen seeti leen euh, ban discours ngeen jàpp ci li nga xamante ni ñoom la wax en général. waaw maa ngi lay sant bagarab di nuyu aussi sama mbokk jigéen yi ma fi fekk. Mhm. di jéggalu tuuti si baat bi. Mhm. ndax campagne dafa metti dem dagan batu askan wi dafa metti il faut que nga wax len lu leer waye nak yaakaar ni man fuma dekk yombe na fa mhm. Tiwaawan ga ma jógee wax fa yom na dafa tombeek nak ci nawet lañ nek dañu grip waye bilan bu bu bu jappandal la andi walé mhm. di wër nañ fi ñu dëkk waxtaan nañ ak nit ñi wax len li li nga xamantene moy solo ci li ñu jëm modi ci ay législative lañ jëm lan mooy élection législative moo di askan wi ñoo war a tànn seen ay ndaw yabal leen ca assemblée nationale bu ñu dagaanee seen baat ba pare lay tax ñu dem fa moo di teewal leen fa défendre seeni intéret loolu moo ñu tax a jóg mm-hmm. ba tax na dox dox nañ ci wax nañ ci tey am nañ ci yaakaar. Mhm. bu baax a baax. Mhm. alors Soxna Diarra yow yaa ngi ci coalition Manko Taxawu euh, Sénégal ñu investir la ci département bu Dakar nga nekk euh, deuxième ci euh, liste nationale bi alors liste départementale bi du moins lan lañ mën a jàpp ci seen coalition bi ak ci biir Dakar bu ñu jàppee ne da ngeen am. candidat de de de de li nga xam ne mooy adversaire de taille gis nañ fi ki nga xam ne mooy Amadou Ba moom moo fi ne nan ngeen di dérouler seen campagne exactement. waaw euh, Badara dérouler campagne bi dina yomb parce que xaaruñu ba élection jot ñu doog a dem ci population yi. Mhm. Euh, pour la plupart ci liste bi ay maire ñoo ci nekk muy ñoo xam ne am nañ proximité ak seen base tàmb nañ di gisante ak ñoom xaaruñu ba élection jot rek. ñu dem si ñoom pour wax ak ñoom. Euh, deuxième chose comme ni nga ko waxee Amadou Ba moo jiite liste Benno Bokk Yaakaar. Euh, ragal na yaakaar naa sénégalais am nañ yeewu gu toll ne xam nañ ni. poste ministre ak poste député c'est pas compatible mm-hmm. muy moom muy Diouf saar mi nga xam ne moom na bokkal liste bi ku ci nekk da ñëw pour Euh, naxee nit ñi seen titre ministre ak alal ji nga xam ne moom la ñu yore moom la ñuy naxee nit ñi pour euh, jënd leen. Mhm. mais kenn ci ñoom amul ambition. dem toog assemblée c'est que c'est des dëgg la mais euh, xam nga mu mënuñu toog di xeex nekk élection locale yi nañ koy def suffrage direct. nit ñi mhm. xam ki ñuy voteel. Mhm. di xeex loolu sotteegul. yeneen ministre ñëw di euh, dagaan ba baatu askan yi mhm. pour jox ko ñeneen ñoo xam ne nit ñi xamuñu leen mhm. ñi ñuy voteel xamuñu leen mhm. donc ku ci nekk ki nga xam ne moom nga war a yóbbu assemblée teg ko mu jàkkaarloog population yi laaj leen seen kàddu wax leen Euh, lu ñu mëna dégg ba buñ ko ko joxé tam bu ëllëgé ñu ne yow lañ ko joxon té li nga ñu waxon biñ la koy jox mo gën ñenen ñëw di di campagne pour di ko jox après ñenen c'est pas honnête c'est pas c'est pas sérieux quoi mm-hmm. nañu jël mm-hmm. plus au sérieux le rôle de député le rôle de l'assemblée mm-hmm. ci biir Sénégal alors Aminata Diagne Ndiaye yéen troisième voix ngeen wax euh, ñettel yoon ça veut dire que ñaari yoon yu fi nekk dafa dul bu gën ci askan bi waaw wala déet waaw jërëjëf euh, troisième voix soo ko déggee moy en général dañuy teg euh, parti au pouvoir mhm. mouvance présidentielle euh, tek euh, opposition mhm. ñun nak nous ne sommes ni de l'opposition nous ne sommes ni de la mouvance présidentielle ah, lolu mën a motax ñu né troisième voie ñun askan bi mo ñu ñor kon ça veut dire que ñu ci pouvoir beeg opposition bi xana askan ah bon en tout cas ñun suñu taxaway daal moy apporter du nouveau à ce qui se fait à ce qui se fait. Mhm. am apporter une touche particulière mhm. parce que li fi nek nit ñi di ko dund xam nañ ko. Mhm. bon nit ñi dañoo tay ci affaire politicien. waxuma politique mais ci affaire politicien. tout à fait parce que en général politiciens yi dañu ñëw wax bu ñu falo fàtte nañ population bi war nañ leen gënnaaw donc opposition bi aussi ñi fi boo xoolee ñi fi nekk mooy ñi fi nekkoon rek ñoom ñoo fi nekk ba tey. Mhm. donc mu nek ben genre duel entre opposition parti au pouvoir. Mhm. ñu nag ñu ñëw ñu ne ñun dañuy taxawee ne la ñëw taxaw jàkkaarloog askan bi. Mhm. wax ak ñoom euh seen i bëgg-bëgg. euh xam nañ ko sax parce que ñun ak ñoom ñoo nek ñun ak ñoom ñoo dund ci askan wi lañ bokku en tout cas dal jóg pour servir euh, askan wi et non pas se servir. Mhm. Alors, Madame Thérèse Faye, servir le peuple et non pas se servir. Cela veut dire que yéen ñi nga xamante ni yéen tenants du pouvoir ci loolu ngeen nekkee ba ñeneen ñoo toog naan dañuy ut beneen voie. Mhm. Euh, merci beaucoup Badara d'abord damay wax ne que rek.

té bu choix jotee dinañ tan li nga xamné mo dal sen xel. Hmm. man nak limay wax en tant que responsable des jeunes de paix hmm. nek maire aussi sama gox diaré hmm. moy ñu ngi ñaan bëss ba nit ñi juger président Macky Sall ak coalition Benno Bokk Yaakaar ci lim fi def parce que l'Assemblée nationale moy pencum ndawum réew comme ni ni ko ñep xamé lepp lu gouvernement bi wara def projet yeeg yëpp assemblée lay jaar donc assemblée ñoy saytu yoyu voter loi yi gouvernement bi exécuté ko donc li fi jotta a jaar ci plan Sénégal émergent am ay politique publique yi nga xamantene le gouvernement bi déroulé nako mën na ci lister secteur yu bëree bëri lu dem ci éducation li dem ci enseignement supérieur agriculture di dem ci protection sociale couverture maladie universelle mais mais sauf que souvent ah. gars yi dañ taxé ne yéen au lieu ngeen bilan assemblée nationale. bilan bilan présidentiel, la ngeen di def. alors que nekkuñ ci non non parce que les deux sont liés. Mhm. parce que comme ni ma dit, les présidents, ah euh, li président di def bu du toon assemblée. Mhm. voter projet de loi yooyu. bu du toon assemblée dafa accepter voter budget Sénégal du tout à fait donc c'est vrai que ces deux pouvoirs séparés. Mhm. mais tu vois liggéey bi mënuñ leen a dissocier. Mhm. te balaa nga ko doon xam tey jii par exemple Sénégal ñaanuñu ko yàlla dundoon expérience lu ñuy wax en tout cas euh, un régime euh, semi présidentiel. Mhm. nga xam ne assemblée bi day nekk parti bi. donc ci ngay xam ne que tey jii nii ñun style de campagne bu ñu am bu ñu bu ñu am on a bien raison. Mhm. que ñun ñu wax ci li nga xam ne moom mooy réalisation gouvernement bi mais également assemblée bu fekkente ne am na ay manquements yan taxawaay lañ ci war a Mhm. donc par rapport à la campagne de façon générale de pense que la coalition Benno Bokk déroulé mhm. dans tous les départements nous mhm. ngi déroulé aussi dans la capitale nous ngi déroulé partout donc là nous avons parce qu'effectivement, nous avons une machine pour huilée machine de huile mooy gox responsable maire de conseil de département lañ. Mhm. structure de jeunes yi structure de femmes donc personnel politique bi nga la coalition bi euh, mhm. pour que au moins nga ndam absolument alors avant de ñëw euh, euh, la machine est ça veut dire que l'espoir n'est plus permis pour rien xëy na tànqal nit ñi rek ngeen fi nekké mais c'est un combat qui est combat qui est perdu d'avance. Wa man j'ai un problème par rapport ak euh, ni wa Benno Bokk yakar di campagne parce que man parfois dama né est-ce que ñu législative lañ nekk wala présidentielle dañ ko anticiper. parce que buñ ñuy wax ay réalisation Macky ak ay pont ak ay xaw franchement euh, du lolu mom la ñu. du foofu lañ wax mais ko comprendre parce que c'est lié ici. xam nga 2012. Mhm. dafa fekk ñun ñu bokk coalition ñoo ànd campagne. Mhm. ne leen jox leen Macky Sall majorité. Mhm. pour mu nekk à l'aise pour liggéey. tout à fait parce que euh, jàppoon nañ ci li mu wax gëmoon nañ li mu ñu wax euh, ànd ak moom ci loolu. Mhm. donc bi ñu ko joxee majorité. ñu gis ne que majorité bi c'est une majorité mécanique parce que pendant 5 ans. ñu ngi fay ay député jëndal leen ay oto di leen jox carburant. di leen fay ay fayal ay voyage ak tout ce qui va comme privilège une euh, proposition de loi le voté en 5 ans des proposition de loi boobu proposition de loi bi est histoire politique pour assemblée. mooy proposition bi nga de dafa le nombre de députés pour un groupe parlementaire de 15 à de 10 à 15 députés. Mhm. muy euh, démocratie démocratie tibir biir assemblée. Mhm. Euh, deuxième alinéa bi proposition de loi à mi ngi ku jóge ci groupe parlementaire amuloo droit dem ci benen groupe parlementaire. lolou moy da ngay nek ci groupe parlementaire bi sen groupe parlementaire bi. Mhm. daf lay neex nga tok mu am lu nakari ngay tok donc ñom lolou lañu bu député yi nga xamné ñun mom lañ voté ne leen dem leen ngeen dëgeural démocratie. Mhm. dem leen pour ngeen euh, taxawal séparation des pouvoirs. ñom dañu dem pour liggéeyal président de la république alors qu'ils sont là pour voter le budget. Mhm. certes pour contrôler l'action du gouvernement pour légiférer mais ils sont là comme euh, ay ñoo là comme président de la république du loolu comme assemblée. Il y a une loi qui nga été votée. voté nañ ko fa muy projet mhm. proposition de liy jógee ci euh, député mhm. projet bi mooy liy jógee ci président mhm. euh, voté nañ fi ay loi contre tabagisme tey gisoo fenn fo xamné des nañ des parce que mbedd wala dafa euh, espace public voté nañ ci loi si loyer euh, contre loyer bu baisse du loyer mhm. ñi de ci appartement yi bénéficier ci baisse au bout d'un mois deux mois trois mois ay dañ leen mhm. pour louer prix bi mhm. ñu voté fi la directrice ba mu woowee rakku président de la république dañ ko dàq. xam nga ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii ñu ngi koy dund ak ñoom taalibe yi bi ñu leen dajalee yóbbu leen jam ñaar ñoom ñëpp dellu siwaat nañ. kon mu nekk assemblée boo xam ne franchement ñun yàq na crédibilité. Euh, assemblée ba nga xamante ne assemblée bi aussi l'opposition opposition du mouvement présidentiel, rek moo ci ne euh, mooy li ma la wax dafa mhm. fekk ne opposition bi doole bi ñu war a am foofu ba ñee bu ñu waxee ñoom ñu mën taxaw mhm. amu ko loolu moo waral tey ñun ñu taxaw pour bëgg mu am euh, une représentativité boo xamante c'est équilibré ba du nekk une assemblée mécanique ba lu neex président absolument dinañ si ñëwaat Absa Ndiaye Sarr yow lan mooy sa gis-gis ci loolu noonu waaw man damay dellu rek si eh, li madame la ministre wax ou mm-hmm. madame le ministre wax mm-hmm. ci euh, ni mu waxee mm-hmm. moo di bilan président la ñuy présenté te yaakaar ne bilan président mën nañu xaar ba 2019 ñu soog koy wax actuellement li ñu waroon wax ku ci campagne ku ci génn rek da nga waroon a wax sa bilan mais mais est ce que y a une ça fait une façon de se dérober que de dire que non non ay bilan président parce que président de la république avant d'être président chef de parti là également. ba tey ba tey ba mhm, tey. waaw la ciy jox rek benn exemple bu patent. Mhm. soo demee ñun Tivaouane gëm a dëkk. Mhm. man ku ne xam na la Macky Sall liggéey ca Tivaouane mais fam la ko liggéey. ca xadara ba la ko liggéey. bâtiment yam liggéey. ca xadara ba la ko liggéey mais Tivaouane du xadara ba rek. mais xëy na seen mboolu Tiwaawan tamit xadara wala. bala bala <laughs> taman ca ko ci biir kër ga laa mhm. waaye su fekkonte ni bilan président rek la ñuy wax kon ñun Tiwaawan bilan Demba Diop si la ñuy njëkk wax si Tiwaawan. ah bon waaw. jëmb si lan lan la jot Tiwaawan yi tamit. laa xaw la wala xuwata Demba Diop see toj Tiwaawan man 2004. 84 du moins laa xamee Demba Diop si ci biir kër googu. Macky Sall ñëw Tiwaawan xalif ne ko fii nooy na. mbir mi yoo la man doomu xalifa bilaa laa. waaw ci ndey ci baay. tey xalifa bi bu ma amul woon avalam bu ma amul woon digalam sama taxawaay du am fii tey. absolument kon du ma bokk ci ci liste bi. Mhm. ndax dama lay wax Alioune Badara ñeenti mandat député fu xalifa bee ma ko gënal. yow rek man ab sa njaay saa ma yëg ne xalifa bi sama kilifa. Mhm. moo ma ko gënal téeméeri junni yoon. waaye suñu bàyyee ñu dem. Mhm. am na lu tax. parce que Tiwaawan du xadara ba na ma la ko waxee. Demba Diop seen njëkk moo ko njëkk a toj parce que dafa ñëw xam lii Tiwaawan Tiwaawan dëkk social la dëkku taalibe la dëkk social Demba Diop Sy di fa def social bu fa kenn deful mhm. dama wax barki dem li ray sama baat bi dama wax ni Demba Diop bi ma ko xàmmee man mhm. may am fukki at ak benn su fekkonte ne lépp lu mu def Tiwaawan brique la ak ak ciment kon mu def fa taax yu ëpp Macky bu dikkee doom fu mu def Macky mhm. bu dikkee son excellence la mu ñu defal rëy na torop ñu di ko wax jërëjëf mhm. ndax bëri na président yu fi romb mhm. te defuñu ko mhm. duñu duñu wax ni méritam la chance am la parce que fa mais mérite tamit ci la bokk non chance am la <laughs> non damay wax chance am la parce que mën naa wax lu tax ma chance am la chance am la parce que euh, kilifa yi ca xadara ba mënewuñu defal ñu nàngam bëgguñu defal ma nàngam te mosuñoo d'accord pour leen defal la fa Macky Sall dindee def fa wala lam fa fekkoon yokk ko ñaq man nekk xale sama ñaq dugg na ca mooy ñaq bu ma wekkati sànni sama alal dugg na ca parce que sëriñ bi dafa mës a d'accord ni taalibe yéen a moom xadara bi defar leen seen xadara kon Macky Sall bu ko defee du méritam chance am la mhm. te ñu di ko ci sant nag di ko ci gërëm mhm. mais yàlla dafa dogal madame la ministre dafa am lu wax modi ñepp ngi ci campagne bi ministre yaa ngi ci campagne bi direct am nañu mbooloo mu wacc ci suuf di campagne ñun nous avons un maire fantôme man je suis conseillère municipale bokk naa ci ñu fal maire bi koy wax le directeur de de l'IPRES c'est un maire fantôme tu on ne connaît pas son maire mhm. barki dee moo Ndiaye fu mu dugg euh, ñew leen Tivaouane fu mu dugg dañ naan ka yaay kan te ñun wuñu lolu nous avons un ministre kër gu mu dugg ba mu juddoo quartier bi mu juddoo démb la fay soog a dugg ak tànkam benn par benn ñun soxlawuñu loolu xam nga lu ñu soxla ñoo xamante ni sax dëkkuñu ci dëkk bi tey ñëw di defar dëkk bi assainissement sali insalubrité dafa am Tivaouane Tivaouane bokk na si dëkk sëriñ bi fu mu toog wax ko bokk na ci dëkk yi gënna tilim ci àdduna bi du ne sax Sénégal mm-hmm. mais Demba Diop si moo fa ñëw am na nag ñennat ñi sunu mère mu ngi taxaw di wax ni waaw Demba Diop si mbalit bi muy dindi tuawan convention le bum signé avec la municipalité man en tant que conseillère municipale luma ma xamul ca mairie ba fu naa ne askan wi waruñu ko mëna xam mhm. xam nga su fekkente ni convention le bum signé ak état nañ ñu wax li xew mais bu ñu naxee Demba Diop si Maniko, même su fekkente ni convention la aussi bu mu signé. Mhm. ak la municipalité bu ca lekkee xaalis ba dina dina res bu nelawee dina yàq. c'est vrai qu'il est aussi dans la gestion des déchets également. mu ngi voilà Aminata Diagne Ndiaye pour alternative je crois que yéen vous n'êtes ni du côté du pouvoir encore moins du côté de l'opposition xëy madame Thérèse Faye Diouf li mu wax tamit c' convaincant yoon la Macky Sall en tant que président de la République mais chef de parti bu am ay réalisation ñoom ñu politiqué ko. bu ko politiqué woon ci élection présidentielle bu boobaa kenn du am lu mu ko reproché. sauf que Macky wàccu ci lango yi. wàccu ci lango yi mais nga camarades de parti am ñoom ñoo ñoom. mais nga jël yow déjà nga jël un premier ministre def ko tête de liste. loolu mooy li mu wax léegi ñoom c' parce que seen bilan bilan président mom mhm. la sur le terrain parce que waxna ba tuñ fi PSE mhm. ki le premier l'actuel premier ministre mom mo yoron PSE mhm. donc ñom fofu la bëgg sukkandiku pour def campagne alors que ce n'est ni le moment ni le lieu élection législative lañ une élection présidentielle donc je pense que assemblée bi ñom une majorité donc euh, député députés fa presque sen député comme nous avons une majorité écrasante c'est pour écraser le peuple donc je pense que nous, ñi dañoo mais l'opposition, opposition taxaw la ñuy mais xam nga opposition opposition yi boo ko sa mhm. je pense que l'opposition, bu a une majorité moo gën ci peuple que mouvance présidentielle am majorité à l'Assemblée parce que le la pouvoir pouvoir législatif. Uh-huh. pouvoir législatif dafa nekk un pouvoir comme le pouvoir exécutif comme le pouvoir judiciaire. Mhm. donc il faut un équilibre entre les pouvoirs. Mhm. Mm, ku ci nekk xam rôle. séparation séparation des pouvoirs ku ci nekk xam rôle doxal. Mhm. mais su fait ne yow da nga da nga chercher une majorité mécanique. Hein, euh, une majorité pour écraser le peuple. ba nga xamante ne yow loo proposé euh, euh, mu mu ak mu yow l'essentiel yow mi sa intérêt.

Euh, dégg naa ku euh, c'est une majorité pour écraser le peuple Je ma que ko nekk rek majorité bu naree am peuple bi moo koy choisiral mhm. donc euh, cette majorité ne pourra jamais écraser le peuple mhm. parce que effectivement dinañ comprendre ni que peuple est le leen Benen affaire par rapport à la campagne dama yakar ne que ñii di wax nii yépp dañu fàtte ni que député yu fi jaaroon lu ñëpp député parce que nit ki bu fekkente ne dañ koy évoluer pour renouveler son mandat day fekk ñu ñu renouveler mandat. le département bu mu dëkk mais bu fekkente ne le choix de Benno Bokk a été porté sur une autre personne donc en ce moment lii ñuy wax valable mhm. ci sama xalaat mhm. beneen affaire bi euh, gis nga élection lu ñu mënti di wax ne que euh, élection législative la du élection présidentielle je pense que l'objectif est lenn la objectif bi mooy lan. convaincre population convaincre population yi. Mhm. parce que population bi par A ou B voter té tay di dékati wuñu ay jëm ni diw la dañu wax ay coalition ne manko watu Sénégal. Mhm. ne Benno Bokk yaakar ne PUR wax ñeneen ak ñeneen. té mhm. tour yooyu ñu wax bu doon dañu démon ci ay nit ko nit ñi la wax. mais dafa am ay doomu aadama yu dajaloo tënku ci coalition. and ne dañuy wuti département bu ne ñu def fa ay nit ñañ fa def mën na am bokku bokkuñu ci ñi nga xam ne ñoo jóge ci législature bi passé mhm. donc boo bëggee wax ni ñooñu dañoo war a def le bilan de la législature passée mhm. loolu ça pose problème ci yenn député yi mhm. beneen affaire bi lu tax ba te tey d'accord ma ak ñoom euh, président de la république Macky Sall yow wax nga ko président de la république la mais président de parti la président coalition Benno Bokk Yaakaar tey élection législative ban président ngay gis ba ci Macron bi mujjee barki Dembo Ndiaye bu ñu ko éliré élection législative France mhm. mais nous <laughs> ñu déroulé seen campagne il était un peu à l'écart hein. non il était à l'écart ay téléphone ci suuf mu koy mais ko comme le président Macky l'a fait mhm. mais président gisoo leen ko fenn mhm. ñu ngi leen di reprocher seen affiche ñu gis le président de la République en avant mais <laughs> loolu loolu loolu loolu loolu reproche yooyu mënul ñàkk mais dama bëgg revenir sur le fait que kenn mënul tere nit ñi ñu utiliser réalisation gouvernement parce que tey sénégalais bi ngay dem pour convaincre que woteel alors que kooku amaan na sax xamul député bi nekkoon ci ci ci ci beneen mhm. mais lan nga ko mën a convaincre lan lay njëkk a laaj président Macky Sall lan la fi def mhm. parce que les gens boo waxee Benno Bokk Yaakaar président Macky Sall la ñuy njëkk a gis ba pare mhm. loolu kenn mënu ci dara par rapport à Mohamed Boun Abdallah Dionne dama lay informer ne ko Boun Abdallah Dionne quand même est un militant de la paix kenn mënu ko tere nag mu liste bu fekkente ne président de la république dafa am kóolute ci mom mu nekk premier ministre du Sénégal déroulé action gouvernement presque léegi mu mot trois ans nekk militant suñu parti rien de plus absolu quand même que ñu jox ko le plus normal que mu jiite liste loolu man dama japp ni rek ay ay détails la lima ma gis tay te ma ko moy campagne une élection se gagne sur le terrain moy lan mhm. moi ku wax ak ñi mu waxal nga ak opposition nga pouvoir ak nga feneen ak ku waxal ak ñi nga waxal. li ci sénégalais yi ñooy bu ñu gisee président Macky Sall fi ak coalition Bokk nañ mhm. mais dinañ wote te ba ñuy wote kii du ko parce que les gens agissent en âme et conscience. donc moo may naan élection yi coow li jarul muy

pour lan ñuy xuloo mhm. pour la ñuy histoire mhm. sénégalais lolu loolu bugguñu ko li ñu ñu xam moy mhm. en tout cas ñun lu ñu sant la jeunesse de notre parti té ñu ngi koy def partout dans le Sénégal mooy nañu ñi dem defi ay proximité porte à porte jarul meeting jarul wax ju bëri jarul xiro jarul ngaayo nit ñi ñu dem wax ak nit ñi mais lu ci des nag mooy nañu accepter que ku ci nek am nga say méthode noy campagne par rapport ak li sama sœur bi wax pour terminer pour terminer je pense que fofu il faut nous ñu ñu ñu ñu relativiser. parce que tu sais, je ne que waaw président Macky Sall moo fi a lii lii amul loyer nangam sangam xam nga li am solo. volonté bi nga xam gouvernement bi am na ko il l'a dit l'Assemblée nationale Inch'Allah, allah ñun dinañ revenir ci un texte bu clair ak bu précis par rapport au loyer. Hum, hum, on se souvient hein, ah. euh, pas plus tard qu'il y a 15 jours de cela. gis nañ ben ajustement par rapport à ce que xamné modi loi loi mais tay di ni may rek moy mhm. nit don opposant mhm. lo meuna am a ak mhm. troisième voie di opposition ken mënul wat ngay opposant ak mën que président Macky Sall jëlul mesure bo impact sa positivement budul courant buñu ñu di salaire yañu impôt absolument ak dundu baak leneen ak leneen donc fu may tënkee rek mhm. mooy campagne bi mhm. na nit ñi wàññi coow li wàññi wax ji te dem dem waxeek nit ñi mhm. ay waxu jënd ak waxu de ku ko fii yëkkati rek sénégalais yi ngay saaga ñoom ngay xas ndax sénégalais yi nag bu ñu waxantee dëgg rek te yàlla tax koo fi naan dañ laa jënd rek xas nga ko te gor gu ne nag nag gor nga kon maam Diarra bu ñu déggee lu ñu wax ça veut dire que opposition nihiliste lañ lañu jàkkaar lool kon Euh, en plus de violence yi nga xamante ni yéen a ngi koy indi. di attaquer cortège yu jàmbur ak yooyu noonu. c'est des faits ah li mu wax nii mooy li ñu gis en général alors. moom dafa wax lu am solo. xam naa moom sax rendre si conte mooy dafa def benn aveu d'échec. aveu d'échec bi mooy euh, ñi nekkoon assemblée jëlee nañ leen fi kon ñoom nangu nañ ne ñan ñu indi loon baaxuñu. non foofu dama koy dagg. foofu dama koy euh, dagg

C'est il la. li ngay tudd y a comportement yu malsain ñi <laughs> assemblée nationale. ndax musul am ci ci est législature wala pire. dafa c'est législature que mhm. ku waxal Sénégal de Sénégal ba mhm. Sénégal. et le pire c'est que nous ñi bokk sax

taluñu sax pour génn yàq seen ay nelaw un dimanche. Mhm. pour dem di voter ji. Mhm. kon dafa def aveu d'échec moom nangu na ni ñoom ñiñ fi tegoon defuñu fi dara. Mhm. bu ñu jugee ci loolu ñu dem ci euh, président la république bu mu nee war na campagne ak warul campagne. Euh, benen aveu amna fofu parce que Aliou Sall mi di rakam mhm. nee le président de la République doit descendre sur le terrain pour défendre son bilan parce que jaxlé nañu instant bi xam nañ sénégalais yi jéppi nañ leen sénégalais yi euh, euh, beddi nañ leen parce que munoo tamit nekk ak nit pendant cinq ans mhm. mune la ma fi tegoon baaxuñu jëlee naa leen fi ma ngi indi ñeneen falat ma pour cinq ans après bobu jeex mune la wat ñi ñiy ñu ma ngi indi waat ñeneen mhm. premier ministre même bu fekkee ni que dafa euh militant militant xam nga ci constitution Sénégal euh, président de la république a une responsabilité Le il est irresponsable devant l'Assemblée. Si assemblée du euh, haut gouvernement pour euh, évaluer un peu le mhm. ñoom li ñu liggéey. tout à fait c'est le premier ministre qu'on appelle. Mhm. du président de la république. léegi premier ministre bobu nga xamante ni mom mo wara taxaw ëllëg. Mhm. ñun buñu ñëwé assemblée buñu gagné assemblée ba taxaw dinañ ko wo ni ko kay dañ la voter ay bilan pendant cinq ans ñu ngi lay jox budget chaque année ngay dérouler. kay wax ñu liñ fi def ko nga wara a jàkkaarloog mom mu ñëw tok ci sa ci bir euh, euh, hémicycle c'est paradoxal amul sens donc il faut qu'il soit sérieux le ministre du budget il est terrain campagne alors que moom lañ doon jox suñu xaalis bi muy génnee di dérouler donc nous nous, na connaissons nekk def li nga xam mhm. euh, gouvernement ak assemblée c'est une équipe ñii dañuy attaqué ñii di défendre ñii nekk milieu bi mais bu ñëpp àndandoo attaqué bu ñu paree nag bàyyi fee caaxi tamit loo dugal encaissé waat ko kon nañu jël jël euh, mbir mi au sérieux ñu xam ne que du ay faux ñoom ñoo ko jàppee foo ñoom ñoo ko jàppee caser une clientèle politique ñoom ñoo jàppee ni que kii kat ñamul woon xaaral ma ñamal ko mais ñun dañu jàpp ne assemblée lu sérieux la ñu koo gëm d'autant plus que ñoom bu ñu ñëwee mm-hmm. gouvernance euh, sobre euh, vertueuse lañ doon lañ doon woote waaw ñun ñëpp ñu gëmoon ko nag ànd ci ak ñoom waaw mais gouvernance bu sombre et vicieuse lañ fi gis mhm. gouvernance boo xam ne nii kii ñamul kii ñamoon nag nañ ñamal ki yegg loolu lañ fi gis mhm. pour violence yi yi nga xam ne moom lay wax ñu terminer foofu ma terminer foofu mhm. euh, xam nga tey ba Badara lu mu nekk da nga koy xool ci sa bopp nga jël doomu jàmbur yow buñ ko ñëwoon seen kër jël sa doom mbaa sa frère def ci kaso bi toog añam añ këram ba suur ñëw ne la kaañ teg ataaya di ko recevoir wala doo ko recevoir kon du mànkoo taxawu Sénégal mo len dàqee Grand yof wa Grand yof ñoo leen ne bëgguñu len ah yéna jël suñu doom def ko ci kasso fi do len fi dugg ce n'est pas euh, une raison pour ñuy euh, accepter wala ñuy euh, nuñ koy woowee nangu mhm. euh, euh, violence yi nga xam ne moom moo nekk di am mhm. loo xam ne dañ ko war a bannir la parce que ñun ñoo bokk Sénégal doo ay doomu Sénégal lañu mhm. euh, nañ ko def débat d'idée ku nekk ñëw ne man kat dama bëgg nga jox ma assemblée parce que lii laa la bëgg defal kee ñëw ne nga jox ma assemblée parce que lii bëgg defal ñi ñuy waxal ay nit lañu am nañ xel ñoom dinañ xool kan moo leen wax lu dal seen xel ñu voteel ko mais violence bi ñoom ñoo ko jëmbat et qui sème le vent récolte la tempête. Mhm. parce que bi sommes Médina. Mhm. fu que mobiliser. Mhm. Nous ni rue angle 22. Bamba Fall euh, camion sono bi. wax ak frère la Seydou bokk Médina. ñi taxaw bokk Médina kon nañ ko le 30 ku ki mais dañ leen romb matul donc nous déstabiliser élection am. campagne souvent Dakar

ànduñu nguur ñun itam contre ñu nguur waaye nous sommes au milieu. mais nag yéen ma leeral ni yéen vous êtes beaucoup proche même du président de la ah, république. yow moom yow sa sa président. kenn mënu ko génnee ci mbirum ah contre leen tamit de. contre ñu Macky Sall. ah, ah moo tax ku moo tax ma ne la ku xeexul war a mën xeex. ah ku xeexul. mais man nag man troisième fois moo ma jaaxal ba léegi man. parce que parce que xam nga troisième fois jaaxal ma. waaw uh-huh. parce que da nga wax ni yéen da ngeen jege président ñun suñu déggee président xanaa Tivaouane la te Tivaouane nam fa demee ñun ay observateur lañ xam nga mais mais et puis on se base sur le factuel mooy li ñuy teg suñu bët di ko gis di ko dégg li am suñu eh, ànd suñu non non couleur ñoom ñoom beige ñaata la beige marron. en tout cas di ngeen ñu ci xaw a sonal. non ñun ñun zone marron la. mais damay ragal jour vote bi est-ce que nit du dugg ci yi. déedéet yéen yéen yéen alburax yi la ñun sax alburax ko moom depuis Tivaouane alburax. ko moom balance la am équilibre. <laughs> ñun ñun loolooy suñu campagne bu leen ñu jaawle ñoom day ñun ñoo leen ci campagne laay waaye ba tey ñu dul seen morom ñoo leen mën <laughs> li ñu boole non non li ñu boole ak ñoom lu simple la président Macky Sall dafa wax te am na ci loo xamante ni ñaari wax yoo xamante ni bu ci ne fekke naa ko mhm. li ñu boole ak Macky Sall jegewuñ ko de dañu boole woon dafa am lu ñu boole ndax président Macky Sall dafa wax te ba mu koy nettali maa ngi toog ci tànkam mhm. bi ñuy dem ci local yi dafa wax ni dafa ñëw ci sëriñ bi daf ko woo. mu ne koo bëgg koo bëgg mu nekk maire Tivaouane mu ne ko kenn aw ma choix kuy nekk si maire Tivaouane parce que politique dootuñu ci wax. dafa diviser sunu famille pendant 30 ans. te loolu jaadu nañu leeral ko nit ñi ñu dégg ko. pendant 30 ans sunu famille divisé wu ndax su ñu demee ba sunu famille am ndaat kon dootuñu wax ci politique. Mhm. mais kuy nekk maire Tivaouane ku nu xam lay doon ku nu mën a laayil. nee na président wax ko ni ko mën de bëgg naa am naa ko mu bëgg mu nekk maire Tivaouane mun ko kan mun ko jañ si mbeng mu ko maa ko jur ci ndey ak ci baay mhm. tey boo ne ko woon ab sa njaay saax laa bëgg na nga mun la jàppal maa ko jur ci ndey ci baay nu mu juree jañ si noonu la mu juree mhm. nee na ñu wax loolu ñu fas nee na ñu dem ba mu yàgg président Macky Sall woowaat ko wax ko ni ko ah sëriñ bi renseignement généraux yi kat xamal nañ ma ni ma mhm. APR à lui seul ne peut pas gagner ku àndut ak Demba Diop si doo gagner Tivaouane wax ci. président wax loolu moo wax loolu. que Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin l'actuel xalif moo ko wax ma toog en 2014. Mhm. loolu mooy sunu ànd ak ñoom. loolu mooy sunu ànd ak ñoom. kon ça président moo reconnaître doole ak légitimité bi. dëgg si am foofu noonu. benn mhm. ñu ànd mu jur coow lu bari Tiwaawan ba léegi nit dañuy dañuy sosal di incriminer Serigne bi. Mhm. ni moo choisir Diagne Sy Mbengue il n'a pas choisi Diagne Sy Mbengue le cinq mars dernier bii. a une confrontation ak Diagne devant le marabout. Il mhm. faut convoquer tous les conseils parce que nous avons voté du budget du problème pour vous dire que les li ont voté le début ba la loi, est un maire fantôme Maintenant, il faut wax ça.

ci kanamu sëriñ bi la ñu toog presque vingt heures ba xaw ma ban heure ñu teesante sëriñ bi waxaat les mêmes propos que di ko c'est Macky Sall moo ko proposé mu d'accord ci parce que xam na ko

bi mu dikkee bi mu toogee président dafa toog mu toog ci wetam daf ko tàpp. c'est une longue président. daf ko euh, tàpp ni ko président Demba Diop si jafewoo ma jafewu ma la soo ma bëggee gis gis ma su ma la bëggee gis gis la. Mhm.

duñ euh, ko ni de la mouvance présidentielle ni de l'opposition mhm. donc nous nous voulons surtout pour ces législatives là mhm. un nouveau type de député mhm. député Bo xamante Bi, bii dafay taxawal askanam djage askanam député Bo xamante bi du député président du nekk député euh, parti député Bo xamante ni bu de baatu askan bi ba njox ko ko dafay des ci bis ah, askan wa ubbi fa permanence am toog fa di recueillir seeni avis euh, projet de loi bu ñu bu ñu am mu ñëw toog partager ko ak population bi laaj leen sen sen seen seen xalaat ñu wax ko mu sogo dem tok assemblée mu wor ko ni ki population bi askan bi la mhm. euh mu nekk aussi euh, troisième voie ni mu gisee député aussi mu ñu nekk am député yo xamanteni ni ñu fi rek pour ay privilèges. Mhm. am auto am carburant am chauffeur am passeport diplomatique donc nous sommes là pour nous, mhm. mais sommes là pour pour nous. Nous yow ngay pour sa gox fa nga pour mhm. lan Nous ay problème lan Nous sommes là lan nous. dox là pour nous, Nous nous assemblée comme nous nous xew mhm. euh, projet de loi là lan nous proposition de loi nous loi de finances. assemblée nationale xamuñu assemblée mooy lan. Mhm. donc yu mel noonu dafa war a jeex jël ay nit di leen caser parce que comme niñ ko ni ko sama euh, sama sama doom ji waxee léegi euh, ñëw toog parce que diw mii kat ci man la bokk. Mhm. ñii jox naa leen poste ministre ñii jox naa leen poste directeur ñii ci des am na ñoo xamante ni naa leen jël dugal leen assemblée. Mhm. ñu nekk fa nekkin boo xamante ni seen bopp lañ fa nekkal. donc ñun yooyu la ñu xool. pourtant assemblée bi ren am na innovation yu bëri ñu si def xam nga traduction simultanée yi mosu fi am te gis nañ ko fi. question d' actualité premier ministre di ñëw chaque mois duñ ko fi gis mais reconnaître leen tamit yéen ne loolu ay innovation la ah, mais xam nga ni ñuy ay ay langues codifiées ak yooyu noonu Sénégal moo ko laaj xëy na. waaw mais xam nga loolu dafa nekk loo xamante ni lu ndaw la. ci li ñu doon xaar ci député yi ci ñuy xaar. Mhm. lu ndaw la ci li ñuy xaar parce que am na ci ñoo xamante ni. dinañ nekk député ba seen mandat jeex. Mhm. doo leen mës a dégg assemblée. duñu mës a jël parole duñu mës a amuñu lu ñuy défendre foofu. Mhm. wala lu ñu fay présenté ci loo xam ne dafa jóge ci seen seen. mais ñu ngi naan travaux de commission yi li fa député yi di def moo ëpp. bu baax li def plénière. Mhm. je sais. travaux de commission mais travaux de commission. foofu député am na droit jël wax jël parole deux heures wala trois heures te kenn du ko dog dégg naa foofu député yi dañuy xëy suba ba guddi di liggéey liggéey bu métti xëy na bu ko rajo yeeg télé yi doon wane dinañ xam njëriñu député député yi peut être. waaw mais mais loolu bu ñu ca paree day nekk liggéey boo xam ne après day génn day fës. absolument mais liggéey boobu bu fësee. Mhm. normalement lañ fa liggéey. Mhm. bu fekkente ne yow la nga euh, yow ma jóge ca sama gox ba ma jógee man ca banlieue ba. Mhm. ñëw toogal fa au moins loolu bu génnee danaa dégg ni kat dinaa ci gis sama bopp. xam ne ah kii kat. xëy na sama député ba ma fa toogal. moo fa wax li lii lii man la concerné ci sama ci sama biir sama bopp. mais loolu moo dul am. du loolu moo doon am te loolu du yoon. Mhm. loolu lañ nit ñi soxla yow bu bu fekkente ne commission travaux commission yoy amna au moins. Mhm. du liggéey bo xam dañ koy liggéey pare jël ko do ko ci tiroir. Mhm. au moins ay ay ay ay ay xalaat yo xam dañ ko génné doxal ko ba nga xamante ni ñi nga xamante ni ñoo toog dinañu ah ñun kat vraiment. assemblée mi ngi liggéey. ndax lii ak lii ak lii ak lii. au moins man miy toog ca sama gox ba ca banlieue ba. gis naa ni kat. assemblée am na lii mu indi tey lu yees loo xamante ne man gis naa ci sama bopp. benn question bu ndaw moo leen boole yéen ñëpp balaa maa def dernier tour table ku fi jot carte d'identité am ak carte d'électeur am actuellement yow jot nga. man jot naa man yow jot nga. man jot naa waaye sama waa kër kenn jot man jaar yow jot nga. jotaguma ko de. yow joto kon ça veut dire que Mame Diarra yaa yéex a jël jëli sa bos wala. non man maa nekk opposition. damaa nekk opposition ah, <laughs> ah ay waa Diop la. kon yéen daal yéen waa man ko taxaw Sénégal la waa Benno Bokk <laughs> ah, ah. Euh, euh, euh, gis nga nag affaire carte d'identité yooyu yaa ngi soog laal li ñu war a laal. waaw waaw mm-hmm. parce que affaire carte d'identité yooyu nous sommes à moins de de deux semaines des élections. tout à fait. lu ëpp genn wàll gi jotuñu seen carte. di yoon.

Euh, damay leral ben mbir d'abord. Mhm. Mam Diarra je pense que si wax <coughs> affaire u aveu mhm. par rapport au renouvellement des mandats des députés c'est parce que amna lu mu comprendre aveu amoufa. Mhm. dans l'histoire du Sénégal ken mënul wax ni que mandat ñi nga xamné par exemple dañuy def cinq ans bu seen mandat jeexee ñom ñoy toogaat mënul nek. donc fofu aveu fa amoufa. mënul nek parce que nit mën nga nek ci parti bala sa mandat jeex nga gis fa la neexul ci bi même am nga choix option leneen lay mhm. affaire bi politique c'est une activité dynamique booy investir nit 2012 mhm. boo demee ba 2017 xëy na situation département ba la muy mhm. ah mën na am yeneen leadership yu fël. tout à fait yu tax tey leader bi buy def choix ñooñu lay jël parce que tamit politique comme on le dit c'est la représentativité. Mhm. mooy noblesse politique. balaa ngaa naan damaa noble en politique day fekk nga am mbooloo. Mhm. donc choix yi loolu moo koy déterminer donc du loo xam ne rek dafa fermé wu ku mu doonoon kooku lay doonaat bu doonatul moom c'est parce que liggéeyul wala c'est parce que amul njëriñ. Mhm. c'est pas ça je suis désolé. beneen affaire bi.

te fogna am kilifa motax comme ni nga ko waxee nga ne xalif bi wolé mais li am solo dëkkuma Tiwaawoon mais xamna ko ma moy président Macky Sall defaral na waa Tiwaawoon lo xamantene te defu ko tamit parce que dafa nek président de la république mais de ko def tamit ngir cofeel gu mu am ci tarikha gi donc lolu tamit je pense que buñu jàpp ne ay réalisation président dafa am ay limites wala wala wala digganteem ak Diop Sy digganteem ak Diop Sy du ci sori parce que affaire mbali boobu ngay wax xam nga mën nga koo bàkkoo en tant que nit ku jege job si mais li may wax xam nga ko le système de ramassage des ordures au Sénégal dafa am ay nit ñu ko gañe mhm. ñoo xamante ne ku ci ne dafa am ay département yow contrôlé par appel d'offre par appel d'offre te loolu état nga ciy liggéeyal mhm. donc tey job si bu ko neexee comptabiliser ko à Tivaouane mais man su ma dëkkoon Tivaouane nekk militante président Macky Sall man dama koy comptabiliser réalisation président Macky

système boobu ngay wax ak état nan la ci liggéeyee. Mhm. ay nit taxaw diko ko liggéey loolu gouvernement bi mo am contrat ak ñom légui benen affaire bi par rapport toujours ak luñu wax de façon générale euh, gouvernement bi assemblée. Mhm. député yi nit ñi des fois nañ leen wax nañ leen nañ leen balu ak man mi di wax ak yow je suis directeur général, mhm. commission dama koy fekkee ba mu jeex plénière dama koy fekkee ba mu jeex yaay boy boo nee amna député yo xamné ba bu ñuy jeexal duñu naan seen gémmiñ lolu amul. parce que tout simplement commission assemblée nationale day dem ba quatre heures de temps té député bu nekk bo jëlee parole di nga interpeller nit ñi sama dëkk amul casier tout petit lan ngeen lan la ci gouvernement bi xaar secteur bu nekk ku ci nek la nga xamné moy sa préoccupation gox di nga ko fa wax. xëy nak liggéeyu commission du lu ñuy woné ci télé mais lolu c'est des rapports. ñi nga xam ne service assemblée nationale am nañ ko tënk nañ ko te ñoom seen euh, discussion yooyu ak échange yooyu ñuy def ak ministre yi rapport yooyu moom la ñuy tënk moom la ñuy liggéey ba mu dem plénière plénière xëy na ci la journaliste yi di soog a ñëw moom la ñuy dem ba mu dem ci li nga xam ne moom mooy ah, budget non may ma rek bi nga wax dama laa déglu may ma rek ah, moom la ñuy moom mooy continuer mhm. ba li nga xam ne moom mooy plénière ak ba ba ñuy voter budget bi mhm. donc député yi dafa am loo xamante ne il faut ñu reconnaître ko euh, par rapport ak euh, seen liggéey xëy na am na ñoo xam ne yëngatuwuñu mais ça ne veut pas dire que yëngatuwuñu parce que peut-être amuñu benn visibilité médiatique mhm. mais c'est pas parce que amuñu visibilité boobu commission bi jotee dañuy wax am na ñoo xam ne li ñuy wax mooy ëpp solo sax li nga xam ne moom la député yëpp xam

sa foo nekkoon rek da ngay ñaan yàlla ëllëg nga dem fu ko ëpp donc ñu ngi ñaan yàlla législature bi nga xam ci la ñu jëm mm-hmm. vraiment ñooñu aussi dépassé fi nga xam ne fii la ñuy nekkoon parce que mm-hmm. Sénégal ku ci ne da nga bëgg avancement mais su ma ñëwaatee rek de façon générale mm-hmm. par rapport ak li nga xam ne moom mooy muy campagne bi muy lu ñuy wax député yi ay dañuy fayeeku lii mais attends kan mooy xëy ci dara te bëggoo cee am dara yow bu ñu la faloon député di nga rono sa salaire di nga rono sa oto di nga rono sa carburant

Dakar Ziguinchor boo ci demee ñaari voyage mu jeex mais député bi day chaque week-end Vous avez dem dëkkam mooy jënd essence boppam yaa dégg man mosuma doon député mais li wax dama ko xam xam li ñuy dund ki Medina de Fula ko 300 litres et puis je suis pour que na distribution carburant député assemblée mm. nañ ko def de façon proportionnelle selon les distances ki dëkk Mbour wala ki dëkk Dakar mm-hmm. warta tolo ay avantage ak ki nga xam day dem ba Ziguinchor day dem ba Bignona mm-hmm. day dem ba Kirikoro mm-hmm. te ñooñu problème ñi am moy gëna metti métti foofu ñooñu dañuy am problème ndox dina bokk ci seen ay proposition ñu demee ci treizième législature mu terminé am problème ndox dañuy am problème courant c'est-à-dire da ngay am dëkk yo xamante ne da ngay wër dëkk bi amul courant amul ndox te pourtant waa Dakar seen problème nekkatul ndox. nekkatul courant. am na besoin yoo xam ne c'est déjà. lamp yi lamp yi ñu tàkk fii nekkatul ndox nekkatul courant. par rapport ak par rapport ak coupure maam mhm. dama lay xamal ne que. Mhm. Sénégal ñun ñi ci àll bi. man je mhm. parle en connaissance de cause. am na dëkk yoo xam ne ba tey jii. mais adduction d'eau yi dafa war a dem moom moo waral PUDC. mais Dakar am na fi ñoo xamante ne adduction d'eau bi. ak mais par rapport ak yeneen zone yi. les besoins sont donc foofu laay voilà maam maam Diarra nga wax sa sa sa sa kii dernier moo nga jaare la fa tijjaale ah mooy sa der sa sa dernier <laughs> intervention waaw par rapport ak euh, moom bilan bilan sànq bilan d'ave comment ça s'appelle aveu d'échec bi ma ko wax mu mu delluwaat si mm-hmm. nekk ñoo jig euh, waxewu ko noonu ak yooyu ba tey d'accord nañ mm-hmm. mais euh, benn bokk yaakaar lañ joxoon suñu ay voix mm-hmm. c'est pas un tel ou un c'est la coalition ñoom coalition bi moo comptable de ce que la douzième législature a fait mhm. même su fekkee dañuy changer nit yi la coalition reste la même. Mhm. Donc, je réitère mes propos. Et vous, qu'elle a fait. Vous faisiez partie de la coalition, Yann ouais, parce qu'au dernier moment, peut-être que euh, Justement, mhm. et je l'ai dit, c'est ça ma intervention, vous dites tout. Tout à fait. Macky Sall, vous savez, Yakar, lundi de demain. Évidemment. Nous avons beaucoup de Non, je ne suis président Macky Sall, parce qu'il y a un président de parti. là. Nous dit APR. Mais si nous avons débat, nous sommes président de la République. Qu'est-ce que c'est Ce bon, nous président mhm. Macky Sall. Donc, je reviens. Euh, Hmm. mu may dag sax. donc mom dañu ñew am yaakar ci mom mu woñu ci si né jox leen ma assemblée euh, majorité. ma mun a dérouler sama programme. parce que suñu amee assemblée boo xam daf may téye ak yooyu du ma mun a kii ñu gëm ko ci loolu. Hmm. mais bu ñu demee ba xam ne que kii fu mu ñu jëlee fu mu ñu jëmee bokk la fi nga xam ne fa lañ bëgg a dem ñun. dañu téye suñu tànk xëy na am na comportement boo xam ne moom la ñu amee ci suñu biir parti moom moo tax ñu dàq ñu ci suñu parti parce que ki jiite suñu parti parewul won pour xol li intéressé sénégalais mais mom peut-être avantage yi muy am fofu mom moo intéressé donc man euh, je n'insulte pas mon passé luma xamné ne man mako def je l'assume mais buma ma ba xamné li fi ma jëmee bokkul ak fi nga xamné ne fa la bëgg jëm bokkul ak li nga xamné ne la wax ak sénégalais yi ba may dem di len utal ay voix dama retiré wu et je l'assume tay kuma andal tamit bu suba buma gisé gisee ni que fii nga jëm du fiñu andone damay dellu ginnaw du lo xamantene ni amna ci ben ben yoon kersa. euh buñu jugee ci lolu euh nee na Macky dafa défaral wa Tiwaawan ak fenen ak fenen terme défaral bobu man daf may gêner. parce que buñu ñu président. Mhm. jël suñuy déem ak suñuy Dakar jox ko liñuy xaar ci mom moy mu défar mhm. on n'attendait pas moins de lui il est payé pour ça Macky Sall moy suñu ñun moo ñu war jaamu en fait. le président du suñu buur suñu jaam la. Mhm. parce que ñun ñoko tek fofu bu fébaré ñoo koy li muy lekk ñun ñoo ko ñoo ko koy jox suñu xaalis l'argent du contribuable nañ jàpp ne moom mooy suñu employé daf ñoo war a liggéeyal bu defee xayrun ñun remercier ko bu deful tam sañ nañ taxaw ne ko lii ngay def nii du lii lañ la sax mu def mu war ko déglu mu ngi def waaw bu yokkee ñu jël ah, comprendre nga duñu du ñu ne nit ki defoo dara parce que su boobaa voilà mm. loolu baaxul mm. nit ki buy def même bu ndawee nañu nangu ne def na lu ndaw mhm. mais na na jéem a yokk daal mhm. bàyyi inauguration yi bari na torop te yoo xam te ne fekkoon nga ko <laughs> mu ngi doon waaj a pare nga peinturaat ñëw inauguré vraiment bari na mhm. euh, ñu jógee ci loolu ñëw ci carte yi terminé foofu waaw carte yi franchement ba doy na waar parce que vote dafa nekk droit boo xam ne constitution moo ñu ko jox yéexoo boo ko ci Sénégal yi abonné à non man du ma def loolu parce que dama nekk actrice politique di dem si nit yi di dem di wax ak ñoom di leen sensibiliser pour ñu a voter man amuma sañ-sañu dem inscrire ji dem naa fi ma inscrire dem naa ba sous préfecture dem naa ba daaf sax am de fu nekk ngay dem pour. di li jot ci carte non non ñii jotaguñ seen carte ah. ñii jot seen carte non jotaguñ yow jotoo sa carte yow jotoo sa carte man jaar yeegale non directrice. ñu ngi bëgg seen carte nii ñun xam nañ ñoom lu ñuy def bay jot carte yi sax. parce que tey bu fekkee ni que danga nekk ci système bi. président commission yi ñoom ñoo leen di fal. aujourd'hui à la Médina commission a été euh, ancienne mairie bi fu ñuy l'ancienne mhm. ancienne mairie moo nekk PMU bi la mhm, mhm, campagne bi commencé suñu tête de liste bi nek maire Medina en même temps dafa ñew ne leen dama leen bëggoon euh fi Kër Maam Dabaax muy benn école primaire bu nek fo waxtaan ak président commission ba mu dem visiter xol yëpp ne ko c'est très bien mm-hmm. donc après dinañ ci waxtaanaat pour ñom ñu déménager fo parce que ñu leen déranger mm-hmm. mais à sa grande surprise dafa xey ñu ne ko commission mi ngi Iba Mar Diop ko fa yóbbu loolu lañ lay laajte. xëy na commission aussi am na ñi nga xamante ni commission bi même bu fekkee dañ koy tuxal en tant que maire amuñu droit tuxal ko te notifié wuñ ko ko moom ak population bi ñoo ko jotandoo. Mm-hmm. muy li nga xamante ne nii nit ki li mu décidé ba def ko li tax mu def ko xamuñu ko kon cuune moo nekk ci suuf du leneen. cuune xam nga nit mën na ma bëgg mais mënul. Mm-hmm. ñoom dañu mënul loolu mooy problème bëgg nañu. bëgg nañu ndeysaan dañu mënul parce que ndax jël xaalis bu dul jeex ay milliards yi milliards pour defaral nit carte carte. vraiment waroon nañ mën a kii nit ñi di am ay trois cartes numéro yi benn bokk ci wala ñu jël tey gero gis naa benn paa ci photo ñu defaral ko ne machine tamit euh, mais machine bi ay nit a koy defar mhm. ay nit ñoo nekk ci ci mhm. système bi ci boppam ñoo mënul tout ne weesuwul nga jël Amadou Ba mi dëkk unité 6 nga def ko tête de liste département de Dakar dëkkul Dakar Géejawaay la dëkk mhm. unité 6 unité 1 ba unité 6 commune Golf la bokk bokkul département de Dakar ndeysaan moom ci boppam xamul fu mu dëkk kon ñu ngi. ça devient grave alors. ñoom terminé nañ. ñu terminé waaw te nanguwuñu bàyyi avant ñuy ñëw. Euh, mhm. euh, ministre bi dafa wax ni. 90 pour cent sénégalais yi. yow directrice yow daal temps yow def nga ko ministre daal amiin ah kon sax amiin. <laughs> Mhm. Mhm. yaa ngi dégg. moom dafa wax ne 90 pour cent sénégalais yi jël nañ jot nañ seen carte. waaw baromètre bi daf ko def fii ci plateau bi. waaw mais mais mais man rek maa jot sama carte sama kër sama borom kër rek sama ñaari doom jotuñu seen carte. dama nekk investi ñu war maa fal. machine dañu war a xam ni investi ah, mu ngi noonu kon donc soo waxee non dama dama la tooñ rek moo tax ma wax la loolu xam nga mhm. dama doon tooñ wax ni ñii jot nañ seen carte. Mhm. benn ñaar sànq da nga wax ne bu ñu dama tudd Diagne si dama ko tudd parce que ñun investi ñoom yi ñu am Tivaouane mhm. battre ñu campagne xam nga ñan ñooy campagne foofu. Euh, sunu maire mooy battre campagne. la présidente conseil départemental mooy battre campagne ak ministre Abdou Ndéné ñoo battre campagne ils sont de la paire. ils sont de la paire. Mm-hmm. mais les investis battre une campagne at yoon parce que ni investirons investir moo baaxul fu ni ñu ko defee Sénégal gi yëpp dama yaakaar ne nit ki boo koy yabal mu fait la assemblée dafay fekk ne yow yaa def choix. Mm-hmm. mais su fekkente ni c'est le président qui a fait son choix dina def choix boo xamante ni dana gaañ. ñu ngi koy wutal. Mhm. loolu moo tax su ma waxee ma tudd Diagne Sy Mbengue. Mhm. mais ce n'est rien d'autre que ça mhm. Diagne Sy Mbengue moom ñoo bokk benn maam. sunu papa yi mosuñu tàqalikoo sama rak la sama rak ak xan émission moo ko matewul ko ma wax la ma bokk ak moom. mais laal bi ngay soog a ñëw da nga wax da nga xas xaw a tiit sax. parce que da nga wax Alioune Badara. émission bi nii nga invité baaxul. ah bon <laughs> non non loolu amu fi loolu amu fi loolu amu fi loolu amu fi loolu amu pour pour leeral pour leeral non pour leeral leeral ci côté bo pour leeral may ma may ma may leeral ci côté boobu pour leeral ci côté boobu.

Euh, man li may wax rek mooy suñu coalition. Mhm. pôle alternative troisième voie Sénégal day dem. Mhm. avec comme tête de liste Cheikh Tidiane Gadio. Mhm. ñun dañu bëgg indi euh, lu bees loo xamante ne li euh, moom la askan wi bëgg. ndax ku jël Cheikh Tidiane Gadio gis li mu liggéey Sénégal. te amoon ay privilèges wàcc ko fa. ñu xam ne c'est un grand patriote. bàyyi lépp lu ko euh, euh, ñor muy réewam. Mhm. mu bàyyi ay privilège am ñëw pour liggéeyal Sénégal boobu ba léegi jógu ci. Mhm. te boo xoolee aussi ñun suñu liste yi euh, tête de liste yëpp presque ay ay jigéen lañu. nga dem Pikine département de Pikine jigéen lañ fa investir. nga dem mhm. Rufisque jigéen lañ fa investir. Géejawaay jigéen Dakar jigéen ainsi de suite donc kon kooku xam na ni jigéen dafa am place bu fondamentale ci société. xam ne jigéen luy doxal réew ci la bokk mhm. kon defe naa ne nit ñi nañ xam euh, ràññee bu baax pour bu ëllëgee bu ñuy tànn ñu nekk mu nekk tànneef boo xamante ne bi tànneef bu mucc ayib lay doon tànneef boo xamante ne bi du tànneef boo xam ne bu ñu ko def pare dañuy rëccu mhm. kon nag euh, suñu coalition mhm. benno euh, coalition pôle alternatif euh, alternatif troisième Sénégal day dem mhm. donc man ma bokk ci investi nekk liste nationale nekkal sama parti jàmm gën si Kambaaw fa laa dëkk fa laa jóge ku fa dëkk xam nga ma ma nekk fa di def du social parce que nag ñun loolu moo ñu gën a intéressé peut-être politique politicienne xiiroo ngaayoo xëccoo fii. Mhm. ñun askan wi moo ñu ñor. absolument ku ci nekk fa nga nekk. Mhm. xam nañ ni la nga fay def. Mhm. ñoo ngi nekk ci suñu base comme ni ñu koy waxee def suñu ay visite de proximité. di wax ak population bi. Mhm. te xaar aussi ba politique bi jot ñuy soog a jóg. ñoo ci terrain bi toujours ci terrain bi toujours. tout à fait ñoom tamit ci ay actions yu positives. yoo xam ne dañ koy def. jëmale ko ci population bi. merci merci pour euh, développement. pour pour euh, social. tout à fait tout à fait euh, merci merci Ami Aminata Diagne Ndiaye li ma jaaxal mooy. coalition yëpp ñoom li ñu jël ren système bi moom mooy ay proximité proximité ça veut dire que ils sont elles sont conscientes que ni.

su ma ñu may ñu may ñu may ñu may gaañ fii ci ah, ah, <laughs> léegi tàggatoo yéen ñëpp tàggal naa leen yi waaw yéen ñëpp tàggal naa leen yi ñu di gërëm di leen sant le débat est passionnant je suis désolé nga baal ma su ma la joxee parole je suis obligé ma bëgg a wax ma ma wax <laughs> ñëpp jël ci commission yi <laughs> ministère de l'intérieur mu ngi liggéey a ah, def mhm. non débat bi jeex na débat bi jeex na débat bi jeex na alors alors alors ñu leen di gërëm di leen sant c'était c'était duel ñu doon recevoir différentes représentantes ci coalition yi gërëm leen sant leen gërëm également techniciens yi ñu àndaloon duel dina ñëw prochainement ak ñeneen ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci coalition yi ñu leen di gërëm di leen sant.